ba tey ñu toll ci sunu dars allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ma yenent bi alayhi salaatu wasalaam xamal na ma ne julli korite feet la benn feet la ci feetu lislaam yi julli korite benn feet la ci feetu lislaam yi nga xam ne lislaam moo ñu ko jàngal moo ñu ko indil mu nekk feet yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jóge ne màkka ñëw medine mu fekk jullit yi mu fekk yahud di feetu feetu jaahiliya mu laaj leen waaw yéen seen feet gi ko waral ñu ne ko yàlla moo rëccaloon yonent yàlla Muusa daal di labal Firawna ñu koy feetu mu ne leen yéen julin yi de yàlla changel na leen ko ñaari feet muy korite ak tabaski kon bàyyi leen feetu ceddo yi mbokk jullit yi kon julli iit feet la goo xam ne dañoo sunnaal jullit yi ñu feetu ko ñoom ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen feet la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yoonal ne jullit ñëpp nañ ci participer kenn waru cee des ginnaaw ndax njàngale ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam la yonent bi yoonal ko ci ñoom ne leen yàlla tabaraka wa moo leen changel feet bi indil leen feet goo xam ne feetu lislaam la moo tax ñu yoonal ay kàbbar yuñ ciy def mu nekk lu rafet lu lislaam taaral ñu sopp jàkka yi ak kër yi ak mbedd yi marché yi lépp nañu koy kàbbar mu nekk feetu iidul fitri ma ngay tàmbalee bu jant wi soowee ci ñaar fekkeelu fan ak juróom ñeent wala ca fanweereelu fan kenn ci sëriñ yi ku tudd ibnu qudaama ne jullit ñi waye zaharuna takbiraat fi layaalil iid war nañoo feeñal ay kàbbar ci guddi iid gi wa huwa fil fitri mooy bis bi nga xam ne ca la ñuy dog wali tukmilul iddata wali tukabirullah ala ma hadakum wa laallakum tashkurun nga lawaay màggal leen yàlla ngeen mottali lim bi ngeen màggal yàlla ca leen yàlla defal ay xéewal ndax ngeen mun koo sant mbokk yi kàbbar ci guddi gi nga xam ne weeri feeñ na ci jàkka yi ak kër yi ak mbedd yi ñuy tukki ñu tukkiwul ngir feeñal kontante lislaam ngir feeñal taaru lislaam ngir feeñal jàngale yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam mbokk yi feet ci lislaam dafa war a nekk mbégte gu jullit ñëpp di ànd di ko bégandoo loolu la ñu lislaam jàngal loolu mooy feet waaye du puukare du ngistal du wone sa bopp du jaay maana du jaay taar waaye day yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam li mu jàngale ci ay feet bi mooy jaamu yàlla li jàngale ci feet bi mooy jàppalante li mu jàngale mooy solidarité ñu war a sori lépp luy puukareek foo ak ceddo ñu xam ne feet bi annaha qurbatun wataa lillahi bis la boo xam ne dañ cee war a jege yàlla bis la boo xam ne dañ cee war a topp yàlla wa fiha taazimullahi dañ cee war a màggal yàlla di ko ci kàbbar di ko ci màggal loolu moom mooy feet dañ cee war a joxe sunu azaka muurum koor ndax wañal wane kontaante ak mbégte wane xéewal gunni yàlla defal ñun dey bokk nañ ko ak sunuy mbokk jullit ñëpp ñoo ci war a ànd takku ci ñi mag ak ñi ndaw góor ak jigéen ngir ñu wane ruuxu is diine lislaam lan mooy jëmm lan mooy jëmmal diine lislaam lan mooy ruux gi dëgg dëgg dëgg lan mooy diine ji nee na feet bi dafa war a nekk lu matale maa yajcalu naasi jamian yushaarikuuna fi tahqiqi haadihi l maana ñëpp ci société bi ñiy jullit ñoo war a ànd ñoom ñëpp pour dundal maanaa boobu ngir feeñal ko ngir feeñal taar gi loolu moom mooy feet ayuha al ahbaab wa fi l tatajalla al min maani islaam ci feetu lislaam yi lañu war a xam lan mooy taaru lislaam lan mooy jàngale lislaam ci la lañ war a xam dimbalante ci la lañ war a xam imanisme wa fi l iidi tataqaarabu quluub alal wuddi ci feet bi la li ñuy xamee xol yi nu ñu war a jegalante ci bëggante nu ñu war a jegante ci bëggalante ak jàppalante ak yërmante waaye yajtamiu naas ñun ñëpp war nañoo ànd ci feet bi ngir lan dundal solidarité islamique mbokk jullit yi waaye benn sàppe wa bi xaqi duafa ci feet bi lañuy war a yëgee ne am na sunu mbokk yoo xam ne dañoo néew doole ci société islam bi ñooñu waruñu leen fàtte dañoo war a fexe ñooñu ñu bég ci ci fiit ci feet bi la war a xamee bépp kër bu am jirim la war a xamee bépp kër gu am ku feebar bépp kër goo xam ne ña fa nekk jotul seen ginnaaw ñu taxaw seen wet ba xéewal gi daal mat ci bépp famille wa haza huwa alxadaf min tashrici sadaqatul fitri lii mooy objectif lii mooy jubluwaay li tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ne dañoo war a joxe azaka muurum koor fil iidil fitri ci fiet dundal feetu koor almaani al insaani fil iid ci lañ war a dunde dëgg dëgg dëgg lan mooy maana lan mooy imanisme ci lislaam mooy ñu wone mbégte wane kontaante ci waxtu wi ñëpp ànd ko góor ak jigéen mag ak ndaw looloo tax yonent bi déggoon diine moom jigéen ñi doon gis mbaax sax da leen doon génne suñ demee ba ci jullikaay ba mu seddale leen ñi war a julli julli ñi warta julli toog benn côté ba ñu pare di déglu xutba gi mbokk yi ci yàlla feet du bis bu ñuy ma yàlla feet du bis bu ñuy caaxaane feet du bis bu ñuy puukaree feet bi du bis bu ñuy sollu bon sollu araam tëgg ak fecc naan sàngara njaaloo lool du feet feet yàlla santoon julli ñi nañ ko jaamu jaamu gu jeex yàlla di leen di leen bégal yàlla di leen kontaanloo yàlla bëgg ñu nekk ci jàmm bëgg xol yi féex coono yi wàññeeku waaye nekkul naan leen foleen tux leen jaxasoo leen góor ñi jigéen ñi loolu moom dafa xaraam bokkul ci lislaam loolu bokkul ak njàngale sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kon nañu góor góorgóorluwaat taxawaat suñu wetu njaboot jullit ne teye njabootam ci biir këram tey àddina bi fi mu toll ci lëndam jullit gi war naa war naa mën a moytu bàyyi ay doomam xale yu ndaw trois ans quatre ans cinq dugg ci ay oto dugg ci biir dëkk bi réer wala ñu sàcc leen yóbbu leen loolu julli ñu war nañ ko moytandiku ku nekk man ngaa téye sa doom sa biir kër ndax jamono bi moo changé jamono ba xale yi daan dem di ñaani ndéwénal di dem seeni këri mbokk di delluwaat ci jàmm jamono boobu ak léegi wuute na agresseur yaa ngi fi band yaa ngi fi di tekki lamu xale yi tekki jaaro xale yi wala sàcc xale yi yóbbu wala violé leen loolu jullit bu nekk na ko moytu ci njabootam bisu iit bi fexe leen xale yi bég fexe leen kala yi kontaan jëndal leen lu nekk ci biir kër gi ñu toog des ci kër gi nga ànd ak ñoom feete feet bi wala bu ñuy génn nga jàpp seen loxo wala nga boole leen ak mag boo xamante ne mag bu am conscience la mag bu am xel la mag bu muus la mag bu ñor la waaye boole leen ab dof boo xam ne wala sindax goo xam ne xamul lu dëkk bii riir mu génn ñu ne ko bàyyil fii xale yi demal fee ma yónni la mu dem bàyyi xale yi ñëwaat du fa fekk kenn loolu musiba la maa ngi jéggalu kàddu yi doomu ndey yi mbokk yi di leen ziyaara di leen baal àq di leen ñaanal yàlla tawfiq fi dunya wal axira yal na yàlla sàmm leen sàmm njaboot gi yal na yàlla nangu sunuy jaamu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.